Ousmane Diagne di coordinateur bu mafia kàcci kàcci ginnaaw ba mu jotee convocation bu waa DIC dafa daal di lànk rek ne du wuyu ca boobule convocation ba tax éléments yi DIC daal di nekk eggoon ca këram wante fekk ñu ko fa benn yoonu ba tax ñu daal di am lii di avis de recherche et d'arrestation jëmale ko ci kii di Ousmane Diagne si ab poste bu mu def di xamle ni. kii di Antoine Félix Ndione mu daal di sàkku ñu daal di koy arrêté loolu rek tax mu ne du wuy ji benn yoon ca boobule convocation ndax nag politique rekk moo ko daal di laal nee na à une loi justice en justice nul n'est tenu d'obéir alhamdulillahi alkarim Nabi Worldwide Shipping moo leen di yóbbul wala indil seeni bagages ak seeni marchandises chaque semaine entre Sénégal les États-Unis la Chine la France Dubaï wala Turquie yéen a xam da ngeen fay jëlee bagages wala da ngeen fay yóbbu bagaas waaye li gën a wóor mooy kuy jëlee bagaas ci gox yooyu na nga jokkoo ak Nabi Worldwide Shipping fépp ci biir États-Unis New York Ohio Californie Atlanta lu ko kilo ba huit tonnes fret aérien bi six dollars pound rek la mooy douze dollars le kilo c'est le prix le plus bas du marché su dee Chine am nañu entrepôt Guangzhou Shenzhen ak Yiwu am nañu fret aérien ak conteneur les prix les plus bas du marché lañ leen indil su dee France ñi ngi Taverny côté Kër Serigne Touba bi bu dee Ndakaaru nag ñi ngi fii Liberté 6 extension suwetu Walfadjri am nañu agence Bamako Nouakchott Banjul Abidjan te laaj ma li gën a neex bu sa bagage yegsee

wala nga yónnee ñu mail info arobase nabi point africa amri muhajiran lima ladayka